xam nga am na foo xam ne yàlla day wax ci alxuraan yàlla nag du wax day junj waaye junj bin junj na jàkk ji sori ja nga xam ne bu la neexee mën nga cee wax ne Tuubaa la bu na neexee wax nga ne fii la te fii mooy fee rek fu ci mën a doon rek benn bi la jumaa yi duñu duñu yem duñu yem am na ju am na jumaa joo ne boo ko rombee rek xool ko julli nga am na jumaa joo xam ne da nga ci julli junni yoon door a am benn yoon ci fii ak yeneen ak yeneen waaye nag du lu ñuy biral ndax wax bu dee dëgg tey am ñu muy merloo da koy bañ wax ngir bañ a merloo ñoo xam ne bu ñu ko déggee mer rek la. lu mën a gën misaal yi mënta am. ndax fa muy jëmee kuy julli ji rek àjjanaa tax te sëñ bind ni fii mooy yoonu àjjana loolu masaarik loolu la tekki yoonu àjjana nag yoonu àjjana nag ku la ne mooyeem ak feneen kooko jarta déglu ndax moom fi mu déggul man fi laay julli ndax moo gën a jege sama kër ba mu taxawee ba léegi xam naa daal am na fi ñetti yoon yoo xam ni euh, dama euh, julli gi ci yoon wi la ma fekk mënu maa yegg si ndax oto yu bari ndaxte loolu day am waaye daal mooy sama barabu jullikaay daal bu normal. bàyyi na si boppam dafa bind tagg sëñ Touba moom ci boppam dafa bind wax loolu sama baay ci moom dafa bind dafa bind ne téere alxuraan ay kayit la waaye jëmmi alxuraan mooy sëñ Touba sama bàyyi ko bind bàyyi fi. nee na ko alxuraan ji dox nga xam nga loolu murid yi yegguñu ci xam loolu murid nag dana gën a mën a affaire bi daal urus la waaw sa baay di defar urus nag taxul nga am aw urus waaw nit ki am urus ki am njëgam rek ko koy moom hmm. sëñ bi du murid du tiijaan du xaadir Hmm? mooy nit ki yàlla joxe mbiram rek ku mu jox rek am nga xam nga xam nga ki lay jox milliard ci banque bi moom bu génnee du mën a jël taxi nga xam nga loolu jeex na dëgg moom dëgg la goo xam ne moo jaar ci yonent yi ba yegg si fi rek loolu rek la ñun nag hmm, yàlla may nañu lu baax de yàlla nañ ko nangoo jël rek xam nga dama la ci wax benn benn benn loo xam ne doy na ci lu ne xam nga yàpp woto boor wu neex xam nga lu baax la loo xam ne ko ñëpp ko bëgg waaye lay jox ko nag xaram tawaabiir wala aw nag mën bu ko lekkee jëriñu mais mënu koo lekk danga nga wax xam nga salaat ak gii gars yi defar yëpp ay fruits mango yi boo ko tegaloon gars yi du la faale kon sédd lekk yi yàlla da ko séddali ku ne loola jomb doo ko lekk wata boor alali gaynde la nag du ko lekk bëy du ko lekk xar du ko lekk ganaar du ko lekk dafa am borom liñ tubaal bëgg mbaa fi mën ngaa nekk ne murit nga nit gën la koo bëgg bëgg googa tax mu gën koo jëriñoo te yow doo ci man dara